banaan sans ma participation à la présidentielle élection du am euh, loolu aussi est-ce que un vrai leader war na waxee noonu maanaam du bu doonul yow du doon du doon du doon kenn c'est grave aussi ni ni nga ko waxee ak ni nga ko apprécier je te laisse entièrement la man la engagé waaw déglu moom déglu moom xam nga lan la Ousmane Sonko il ne fait il n'est que le porte-parole du peuple c'est-à-dire Sonko bu newoon sax garaawul population yi ñoo dul nangu c'est-à-dire yoratul son propre en main il est entre les mains du peuple déglu ma déglu ma déglu ma la foule est folle la leader war leen topp ci seen bëgg-bëgg. il y a deux types de de foule. moi je parle d'une foule consciente et d'une foule qui est en train d'apporter les éléments novants innovants parce que comme ni ma la ko waxee d'habitude c'était un leader qui tirait cette foule folle. moo doon indi ñu aliéné la foule. di ko instrumentaliser di leen di instrumentaliser Ousmane Sonko. pas du tout Ousmane Sonko il est simplement là pour répondre pour répondre à une aspiration légitime des populations c'est-à-dire population yi dem nañu ba ñu weddi ñépp ñu ne Ousmane fu mu ne nii yow rek yaa ñu doy Ousmane fu mu ne nii denk nañu la sunu kii et cetera tout et tout et tout loolu moo indi lépp loo xam ne mun na permettre machine bi mun a développé wu population yi engagé wu ci point donc Ousmane na doon aucun mot d'ordre et cetera tout et tout lu muy wax c'est puiser du fond de la pensée du peuple souverain encore une fois kooku tey pour nga am un tel leader au niveau de l'Afrique wax ma doo ko gis mais amatul y a que Ousmane c'est pourquoi Ousmane turam traversé na aujourd'hui toutes les frontières je ne dis de l'Afrique mais de la planète. est-ce que c'est de la meilleure des manières maanaam ni mu ko traversé est-ce que aussi euh, ci lu baax la parce que quelqu'un boo xam ne saa yu waxee nga tey sa gémmiñ quelqu'un boo xam ne il est nii nga ne ma parce que tamit euh, voilà popularité xëy na baax na mais ak ni nga ko ni nga ko amee. non déglu ma popularité boobu moo indi gars yi am ci jalousie cest à kenn ku nekk bëgg na am. ba créé déglu ma par exemple bu jëlee comme élection yi di ñëw yow mii tey nga nekk Pastef ou pas mais xam nga ni élection bu naroon am tey day cartonné au premier tour kooku boo ko buggee bañ c'est que da ngay wax peut-être que. mooy Franc bon bon résultat ah, il va cartonner il va cartonner il sort du lot. il va cartonner dès le premier tour. kan kan moo am tolluwaay Ousmane Sonko fi aujourd'hui les gens se projettent en termes de victoire. Mm-hmm. pas sur la base seen doole. mais en calculant l'absence de Ousmane aux élections pour ñoom ñu mën a jàll c'est-à-dire yow au lieu nga def effort pour nga mën a am le peuple mais yaa ngi calculer ni Ousmane bañ a bokk pour mën a mën a jàll